professeur Aliou Sow la moom mooy ministre de la culture et du patrimoine historique monsieur le ministre ñu lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. soxna Naata ñu lay fay di jégalu nag xaw a <laughs> tardé tuuti nuyu. amutayage suñu am bi nekk ñoom ñoom Ablaye ñoom Mansour ñoom Xavier ñoom euh, Chérif. bi ngi may jiiñ sax ndékki waaye yàlla xam ne ndéewoogu ma ni ko Saalum Saalum di waxee. da nga doon bu ñu paree la incha allah ma ne ko ndéego bi ndéego bu ñu paree la alors la dernière fois bañ la fii dalal yaa ngi nekkoon ci coalition bokk gis-gis liggéey ñu doon dëgmal élection yi jamono ji ministre nga Chérif bëri ay bonk ñu war a ak professeur Sow ñu bàyyi la nga tàmbali ci déclaration politique générale ñëw aussi ci politique culturelle bi Sénégal gi mel mais am na boo xamante ni gis nga ko Charles Foster mi dëddu bërki dem bëggoon nañ aussi un hommage quand même grand artiste bi nga xamante ni lu ne def na ko ngir aar bi j'ai vu que sax semaine dernière recevoir woon nga ko ci turu président République ak premier ministre ak sunu gouvernement maa ngi yëkkati kàddu njaal jëmale ko ci njabootam jëmale ko ci yëngatu ci wàllu cosaan ak aada ci biir réew mi ak biir Afrique ma ci dénk aussi mbokk Sénégal yi ku ci amati yéene wala bëgg-bëgg dajeeg nit wala ni wax la daf laa bëgg boo ko ci mënee xajal xajal ko ci bala dara dala ci dab moom ñu waxtaan lu bëree bëree bëri yàlla daf ma yàlla dafa xiir sama mbir dépp ma nekk ministre am na ku ne ma li nga am ci charge dafa yombul daal ba fan yee nag bu ñu ma ne dama bëgg gis ma toog ajjuma ci guddi ñuy waxtaan maag moom waxtu ne na moom dañuy waxtaan sax ay deux heures du matin message ma tontuwante yooyu mu jox ma ay xalaatam mu julli fajar rek tëddaan mhm. ne damay daal lu tuuti mel ni sama xel dana yër ci moom ku mel ni daal nga kuy jànnaar kenn rek ma yónnee ko message ay 6 heures 30 ne ko mën ngaa ñëw euh, audience bi 10 heures samedi mu yónnee message suma daaj ne ko waa ministre dama yónnee message léegi est-ce que juumul samedi la de moom am na liggéeyu ministre man boo xamoon loolu ci ministère yi daaj bi ne ko noonu dañuy liggéey te suba parce que daa bëri euh, dossier yu urgent ñu war a defar bala muy tukki mm-hmm. te dama doon tukki ci ginnaaw lëg sa ci la ñëw 10 heures ñu waxtaan lu yaatoo yaatu ba deel benn audience délégation ay lab yu jógee si bi xotaam na nga fekkee parce que dañu amoon ay xalaat yu bëri ñu def ci wàllu kooraal yeeg ci wàllu caravane wàllu jàmm ak ci yeneen programme yi def Casamance ma ne ko sax yow léegi nag fête Noël yi sax yegsi na il faut que même ñu waxtaan sax xam naa da ngay bëri ay gan ñu waxtaan waxtaan bu am solo muy tàggatoo man di dem dama yow moom vraiment bi ñu joxee culture bu ngeen génnoon àdduna sax léegi sama xel dal na xam naa ne yow di nga ko doxal hmm. ci ni ma ko doon bëggee loolu lañ mujj a tàggate ko ba gunge ko ba ci suuf mu dem ba jógee ko dem France ànd ak premier ministre ñibbi si ba ropp ba aéroport ci laa dégg ne làqu na muy nit ku am gëm-gëm am na yéene bu mu am et ko am gëm-gëm mais li may koy seedeel ñëpp xam ko mhm. Charles du la wax soxlaam hmm. du la ñaan du la dis mbiru boppam ay mbiru groupe ay hmm. coalition ay alliance ay programme ay projet te xalaatam moom luy jëmale cosaan ak aada kanam amul app hmm. wax li muy bind li mu ciy xalaat moom rek programme la. Hmm. moom rek euh, politique culturelle la en jaar-jaaram gis-gisam. Hmm. ak li muy jukki. maa ngi doon liir ci gërëm may gërëm ay mbokkam. justement mais dama doon liir ci journaux yi ñu ne am na benn yéene projet bu mu amoon à Ziguinchor. waaw ah, loolu di ngeen ko eggali. Euh, lu weesu loolu sax dinaa ko def. Hmm. cest à li ñu waxtaanee moom yëpp dafa mel ni dañoo tàggatoo lu mu waxtaanee ak moom lépp laa wax ne naa ko jëfee. xam ma dafa bu ñu xam ne ay dénkaane la. dund laa lu mel noonu ci ndéem si yàlla Alaaji Alioune Badara Cissé defe naa ay fukki fan bala muy génn àdduna dama seeti sama mag la dix heures ci guddi ba ñaari waxtu ci guddi muy deux ñeenti waxtu yu teglante ñu tàgguwante yónnente ay message mu gërëm mhm. teguñ ci ay fan ñu ne ma làqu na mais waxtaan xam nga ñeenti mag xam nga ñeenti waxtu ay mag bu ñu toog waxtaanee ko wax ñu ko caaxaan mhm. surtout ku mel ni moom yooyu moo tax may la nit bu la waxatee yenn bëgg-bëgg ngeen gisee bu la sa ah. jot mayee def ko boo amee yéene seete kenn seete ko ndax yu mel noonu dina euh, indi rëccu wax ko sa collègue ministre gars yi daal li ma xam ne mooy ils sont inaccessibles moom dénk na ma ay mbir yu bëree bëri ci dénkaane bu ñu tàggatoo fas naa yéene te li ci gën a am solo mooy waxtaan ma daa am seede mm. bu toogoon mm. dina ma fàttali loolu man man c'est important nit ñi dégg loolu vraiment monsieur ministre ñu ngi lay nuyu di la ko di di la ko jaale di ko jaale wax dëgg yàlla euh, monde artistique bi yëpp mais lii dafay posé waat rek beneen problème muy bëri na ay artistes yu nga xam ne wax dëgg yàlla jëriñ nañu réew mi ci li nga xam ne moom lañ leen moom la ñu doon yëngu mais dañuy dem ba am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ci seen finalement ñu génn àdduna ci anam yu nga xam ne yu doy waar la mais li nga tàmbali nii moom la ñu bugg vraiment nga gën ko continuer di leen bàyyi xel parce qu'il y des acteurs culturels qui souffrent dans la dignité te bëgg nañu ñu leen di recevoir di leen toppatoo et surtout seen njeexitalu carrière loolu dëgg la xam nga recevoir moom ubbeeku mooy wareefu bépp nit bu dénk cër da leen recevoir rek amul solo ne recevoir bi ànd ak njëriñ ak gunge ak jëf. c'est ça am na doo ko siiwal de ci taskatu xibaar yi waaye bi mu fi ñëwee léegi moo la waxee ñaata artiste yu seen yaram sutante yow mi jafe-jafe damay liggéey ba 23h booru min bi ànd ak ñaari directeur wala benn directeur seeti la ba sa biir kër ñu def la war a def ci turu président de la République yow te na la jarul sax nga koy wax keneen ndax nag nit bu amee su yaram bu sutante te mënu ko fajal boppam nga def ko wane ko yaa ngi koy jéebaane yaa ngi xaawi suturaam yi nga même nii am sax dëkkan wala mbokk am jafe-jafe mën nga koo dimbale te sax bañ bañ bañ bañ ko bañ a xaawi suturaam mooy indi ëllëg waajee wér ay mbokk ay ngeen xuloo nga naan ko buduloon man di ko xas say doom di xas ay doomam en tout cas lu fi baree baree bari ñoom ñu may dégg loolu laa fas yéene defee ko waaye loolu mooy li ñuy wax loolu day wax sax taf yëngal li mënta ñàkk la li gën a am solo mooy saafara boo xam ne nii day wéy saafara day wéy ñaari yoon laa ci xalaat man bu njëkk ba am na mutuelle boo xam ne président waxoon nañu def ko dimbale ko ci yëngu ci wàllu cosaan ak aada de yu seen seen borom kër Youssou Ndour defoon ci ñaxam bu ñu fàttaliku loolu mm. juróom-ñaar fukki million ak juróom la ci def 75 millions boo loolu ay mbokki artiste président jël lu bari def ko ci léegi mais organisation bi des na moo tax at bii dama bëgg mm. ñu fexe ci région yi defet ay branche mutuelle yi ministère bi jàppale leen ci ñoom aussi ñu cotiser ñu organiser wu jëkk la lënkalantoo ak yi te budget ren bii nii wax naa samay collaborateur am na li mu koppar yoo xam ne bu bëri dañ koy bloqué lekk ko fa li nga xam ne dañu jëm ci wàllu dimbal parce que am nag président jël nay kuréel yu jumtuwaay yu bëree bëree bëri ay fonds yu bëri yoo xam ne da ko la a jóg mooy jàppale artistes yi li ko tax a jóg mooy jàppale seen i xew-xew yu ñuy am li koy jóg moo tax a jóg mooy jàppale seen i xalaat ci wàllu koom-koom loolu lépp man li ma leen wax mooy lépp loo xam ne wote nañ ko assemblée nationale jox ñu ko ci coobare la république ci tegtalam fas naa yéene buutul bu ci ne génne ci gafaka gouvernement bi dem ci poste wala gafaka artistes yi nga xam ni ñoo ko yelloo ci lu leer naññ. ñoo ko ñëwee léegi ay chèque la ñuy joxe nga signé jël décharge mu leer naññ. waaw ah. fin di fin d'année bi naa jël rapport boo xam ne ko jox président wan ko li ñu ma dénk ak léegi ñetti at weer yi ñu génn ci li ñu ma jox lépp li ma fekk muy ruus muy leneen nii laa ko defee nii laa ko jox. waxtu sàngam anam sàngam bu ma ñëwee aussi laajte naa ñu wax ma li jiitoon sama ñëw aussi lépp li fi nekkoon nañ ma wax ko jox nañ ko joxee yan anam lañ ko joxee parce que xam nga nguur jaar jàll ma nekkoon naa ministre ñaar fukki at ginnaaw def ko fukki at génn ñëwaat duggaat naa ci may génnaat ci nii wala ci nele mhm. li ci des mooy nettali ga lañ la dénk la nga ca def mhm. président mooy sama kilifa ci coobaram laa dugg ci ma mais sama nawle la mhm. fas naa yéene def sama kéem xool di sëgg wala kenn du xool sama doom di ko duut baaram ci yéen loolu goo xam ne sa bàyyi jo yoon na ko lu méngoowul ak doom parce que nag gis nga sa nguur yi nii day jeex quoi man ku ma xam xam nga ne weesu naa fu may caalite ci nguur wala fu may jéem a boof ci nguur ngir du ko dundee ndax nag sama liggéey ak sama borom laa gën a yaakaar mm. waaye nag cër mënta weesu ñu boole ci mbir moo xam ne nii luy saafara jafe-jafe réew la. c'est ça voilà monsieur le ministre wax nga ko léegi euh, nee nga li la denk la nga am loo fa fekk ci ay dossiers. ñu ngi ko doon wax léegi ni nga mën a def euh, yoon bi nga jaar pour mën a taxaw artistes yi mais loolu dama yaakaar ne dafa am loo xamante ni ñu ngi ci doon wax at yëpp mu aju ci statut de l'artiste mhm. muy dossier boo xamante ne euh, bokk na ci yi gën a tàng au niveau du ministère si je me mhm. fan ngeen ci toll jamono ji mu ngi avancé bu baax baax bi ma jëkk a yegg dama defoon décentralisation rek mooy statut des travailleurs et collectivité ma njëkk ñëw mooy xool loi bi ñu jox ma laajte loi bi fu nañ ko pare depuis décembre 2020 lañ ko wote ma ne mais ana loi ba ñu ko ñu ngi xaar ma ne nu mënta ne man président bi ma xam loi du nekk ci sur jëm ci moom atum la mënta promulgué ko ma soo sama daal dem seeti fa ma war a seeti laajte bu nekk promulgué ñu xool yóbbul ko président bi ñu gëstoo gëstu xool na ñaari bés yu ay sa tegee mooy 14 janvier 2021 la ko président signé dañ ko wote assemblée bés yu ay mu ko ñu génneel ma ko nekk ma ngi ci journal officiel ba kenn gisu ko ku ñu laaj nga naan euh, affaire ba génnagul ak ma ngi yoon waag ma ngay xaar ak ma daqaar ga ma ci guy ga ñu génnee ko parce que nag li nga bi biri bu ñu la ko dénkee léegi jaa jël téléphone woote bu la da koy sawarloo mm-hmm. loolu lañ def am nañ loi bi fu nekk ni woote nañ ko promulgué nañ ko la koy mottali ay ñaari décret la ñaari décret décret bu njëkk ba mooy décret buy taxawal conseil national des arts et culture loolu saytu nañ koo pare que euh, ma jiitu gouvernement ba ci ministère ba def lu bari aussi def nañ ko ba recevoir naa consultant ba euh, réunion coordination bu présenté ñu ko ah, beneen ba mooy décret biy jëm ci wàllu protection sociale lépp luy jëm ci wàllu wér-gu-yaram retraite euh, à la loo xam ne ëllëg bu borom mënatul ci lay sukkandiku di ci dundal di sutural boppam ñaari décret yooyu boobu nag mooy gën a yàgg ndaxte boobu dafa laaj ay études yoo xam ne ni comme que régime social bu bees buy créé la ñu ngi def suñu képp kattan ak ñetti ak article ñetti arrêté ministériel yoo war a sa bopp man signé ko benn bi mooy génne arrêté boo xam ne day feeñal lépp loo xam ne métier la bu méngoo ak cosaan ak aada ñu bind ko mu leer nañ comme ni ñuy waxee journaliste tey dañ naan la kii journaliste la kii caméraman la kii preneur de son la kii la kii percheuse percheuse la lépp ba pare ñu def loolu liste ko ba mu leer nañ beneen ba ñu xool li nga xam ne mooy carte de professionnel yéen am ngeen di carte presse loolu pare na léegi boo xam ne bépp lu buy am métier di yëngatu wala cosaan ak aada ñu xool looy liggéey ñu jox la ab carte jox la ko tey bu ma la waxoon ñaata nit ñooy liggéey ci ñaata artiste am Sénégal ko ñaata am Kaffrine xamoo ko ñaata am Kédougou xamoo ko mais sëñ bi nag mënoo joxe njël te xamoo ko yeewu sa kër te mat. Ah. wala di nga wala di nga di nga di nga tëndus nii rek. loolu loolu mais lépp këyit yëpp pare na li ci des mooy dañ ne waxtaan gaal hmm. dañ ci loi bi bala ngay jël benn ndogal ñi nga xam ne ñoom ko koy defal na nga diisoo ak ñoom déggoo ak ñoom ni ko président di waxee nga euh, euh, wax ak ñoom bañ xam ne li ngay def ngir ñoom la dugg tàmbali loolu du yàggatu mu pare mais bu loolu pare aussi am na ñaari ponk yu des beneen ponk ba mooy nooy fexee ba li loi bi joxe décret yi joxe ko arrêté yi joxe ko ñu jëfee ko ñaata luwaa ak décret am te jëfewuñ ko xam kii bi wane ko ni rek portale ko mel ni ko ko nataal def sub nii amul mujj ñetteel ba nga xam ne ni da koy mottali lool ala daw mel ko mooy li ñu naan rémunération copie privée mooy tey jii yow ñaar kañ nga gëj jënd ko loolu man waxee woon kañ nga mos dem gëj dem marché jënd musique booy déglu kañ nga gëj a del ab téere bind ko jënd ko boo demee université étudiants yi ñu jàngal da ngay bind ab téere ñu jël léegi photocopie ko jël ko loolu yëpp ngay jëfee ne ko ci xarala yu bees yi ci koo xam ne dafa liggéey ay at gëstu xam-xamam amut lu mu ci suturloo loolu la ñu fexe bu doon créer ab compensation bu tudd copie privée am na ñu naan lempo la ab du lempo du taxe mooy ñu wàllu koom-koom mbir la moo xam ne ni Euh, jox nit ki ndàmpaay la goo xam ne ni xalal yu bees yi ñu koy teg ak ak daan ak lor goo xam ne ni mën naa sëngeemal dundam loolu mën na ko sëngeemal loolu lu ñuy def loolu amee boo ko say xayta boo ko xaymaa lu mu ndaw ndaw ndaw mën naa jural artistes mhm. ñaar ba ñetti milliards par at Côte def na ko ma ngay dox euh. Algérie dox na ko ma ngay dox yeneen réew ñu koy mhm. tàmbali yooyu daal bu ñu ko boolee ba pare lañuy ñuy séddale acteurs culturels yi par ci at bu nekk ci seen ñàkk jëriñoo mën naa gën a yombal seen ba finalement yenn sax kaar tàllal loxo yi jëmale ko ci nguur mun naa wàññeeku wala mën nañu koo banque. mais ci wàllum euh, production euh, monsieur le ministre gis nañ ni euh, jamono ji Sénégal peut-être bon on peut dire que le pays est riche en production cinématographique ak ay séries yu ni mel parce que avant li ñu daan naqarlu mooy langue bi barrière la woon mais léegi gis nañ ni ñu ngi koy exporter lu ci mel ni bon canal sans pour autant faire de la pub ñu ngi fay yóbbu suñuy séries et tout naka la ñu mën a def ba loolu lépp ñu capitaliser ko à l'image nga xam ne dafa am Nollywood ñu dem ba am ñun tamit suñu benn industrie cinématographique boo xamante xamante ni dafay riche dafay am doole ñu exporter ko au delà même euh, de l' bi nga xam ne fii lañ nekk. maa ngi tàmbali d'abord tàmbali d'abord delloo njukkal. ñuy yëngatu ci wàllu cinéma ak ci wàllu série télévisée yi mooy téléfilm yi. Mhm. Euh, soxna naata fukki at ca ginnaaw wala sax juróom-benn at ca boo talee télé ngoon guddi sa kër ak sa njaboot xam nga looy seetaan. télénovelas yu télénovelas yu Brésil yu Argentine yu wala yu Inde. mooy jëggaani aada ak cosaan. Mhm. te muy baawaan sa réew ay ndaw yu am xam-xam am xam-xarala yi am fulla góorgóorlu tax nañ ba tey di ku taal sénégalais ngay seetaan mm-hmm. boobu ngay déglu ñu leen woon sa dund léegi wala sax gars yaa ngi ñaxtu nag naan li ñuy def euh, waruñ ko wane mais li ñuy wane lépp suñu dund la bokk nag mm-hmm. xanaa ko defoon nag maanaam kii lay rek xëy la nag nag nañu nañu moytu yenn affaire yi beneen mooy lañ si teg dañ jëf naa mooy waxuma la jëggaani léegi fi ñun dañuy génnee di jaayaani bitim réew suñu aada mm-hmm. ba télé yëpp di ko wane dëgg la amoon nañ ñaari jafe-jafe bu njëkk mooy koppar yi ak sponsors yi war a gunge ñooñu président jël na fond bu bu ñu naan FOPICA mooy fond jëm ci wàllu cinéma ak lépp lu jëm ci téléfilm yi def ñaari milliards bëgg na koo yokkaat baax a baax moo tax da nga léegi léegi kuy def ay cinéma Sénégal ak film ñu jox la ba ay juróom fukki millions ba ay téeméeri millions juróom-ñaar fukki millions ak juróom jox la ko nga def produire mais loolu dama bëgg aussi ren non seulement nañ ko mais ñi nga xam ne dañuy tàmbali te am xereñ te amuñu jumtuwaay ñu jox leen lu ci beral seen bopp dimbal leen moo tax ma bëgg a taxawal également problème Nigéria leen Oscar des séries télévisées mooy séries yu ngay gis noonu at bu yàlla sàkk njël bés boo xam ne wala ab ayu bés boo xam ne ñu taxawal ay jury ki dàq ki gën a bi gën a xereñ actrice bi gën a xereñ def nangam série bi gën a baax jox leen ay neexal ay ndàmpaay yu mag a mag pour gën leen xiir loolu nga xam ne da nga gis koo xam ne day nekk tey di théâtre ci loolu wala def ci série yi gafakaam amul sa ñaar fukki junne gañaat prix fukki million wala fukki million ak juróom sponsor jàppale ko mu ubbi ab boutique am parce que ma bëgg ñu yëngu ci wàllu aar bi am mm-hmm. ñaari tànk tànk seen xam-xam ak seen xarañ ci wàllu aar bi mm. ak tànk koom-koom bu ñu buntu koom-koom bu ñu ubbi boole koog ñi nga xam ne leen di bëgg leen seetaan leen déglu nekk seen i client comme ça bu bii demee ba commencé lompoñ mm, nga demee commencé jóg mm. loolu moo lay sa sutura mm. ci sa boo amatul moo amatul ndaxte koom-koom bi jël na yoonu mottali xam-xam bi nga mën ci àllu aar li koy mooy ñu ngi taxawal aussi liggéey bu taxaw bu am mucc bu ñu tuddee taxawal euh, centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel mooy loolu gën a xarala te beneen beneen projet boo xam ne man na juróom-ñetti milliards bu ñuy liggéey fi nekk nii di ut nag fu ñu ñu ko financé moom mooy cité du cinéma daluwaayu cinéma ak audiovisuel ba nga xam ne ni mhm. day am lépp jëm ci wàllu production mhm. ci wàllu diffusion ak ci wàllu doublage mooy li ñu génn ci wolof mhm. ñu def ko ci beneen làkk wala français ñu mën ko loolu daal jëf yaa ngi fi xalaat yaa ngi fi yéene yaa ngi fi jëf jëf bi moo farlu fi ak pas pas bi mi ngi fi bu gàllankoor yi ëppul doole farlu euh, jëf ko daal moom moo de sax Ablaye Cissé liberté de création dafa xaw a fiir dëgg la léeg-léeg mën naa sori trop sax ci inspiration. Uh-huh. lan mooy frontière bi ci loo xam ne peut-être dañu ne mën naa te ñenn ñi. Uh-huh. te ñenn ñi teg ko ci liberté de création te xëy na loolu mooy indi foisonnement bi nga xam ne tey jur na. Uh-huh. industrie cinématographique boobu développé te bu buñ ko muuroon xëy na du ñu egg ci benn développement bi ana frontière bi. lu am solo ngi noonu lu jafe tamit parce que dafa mel ni nit ñi li ñuy tere lañ gën a bëgg moo ñu gën a jar te li ñuy tere aussi yoon. du la may nga def lenn li ak dégg-dégg aussi du la ko may Sénégal dafa nekk réew boo xam ne diine daf fi am doole lool muy ci diine catholique muy diine muy jule jullit tarixa yi am aussi lu ñuy bañ jullit yëpp am lu ñuy bañ chrétien am lu ñuy bañ am na loo xam ne dëgg la lu ñuy dund la xam nañ ko ñooñ bu ñu nax suñu bopp waaye kenn bëggul mu feeñ amul lu bees du fi de xalal yu bees yi ñooy feeñal loo xam ne ni xamuñ ko bu njëkk ndax dañ ci woon malaanu kiir laay mais loo xam ne boo ko defee nit ñi téye seen gémmiñ seen naqar yokk mais lu jar a moytu ndax ndaxte nag mën ngaa yeete te doo jël paaka ne tàppit manaanu kiir laay loolu benn la mooy li diina di bañ ak cosaan ak aada di ko bañ ak li nga xam ne même buñ ko doon dundee bugguñ kenn xamal ñu ko bëgguñu xam xamal ko suñu biir moo tax Sénégal lu bëri doon am ci biir kër yi ay njombe ñu muur ko dëgg la nañ lor ab nit mais dina tax njaboot ga bañ a tas wala wuyu njaboot ga bañ a yàqu ba ba abadan beneen ba mooy wàllu nag kaaraange loolu moom man moom personnellement li may nekk nekk intellectuel lépp loo xam ne nii da koy génne ci cinéma wala ci euh, télé te mun naa indi fitna ci kaaraange Sénégal ci wàllu waaso ci wàllu xeet ci wàllu jàmmoo loolu moom man Aliou Sow tant que maa nga ca ku ko ci def la yoon may mais y a xam naa yow bi coow li di am ne ko góob ministre fekk nga ko sa table rebelle bi maro di produit fekk naa ko sama table mais ba njëkkee ñëw dama oo ña ma leen bu mu fi génn hmm. la lañ dogaloon dëggal naa ko te tànk soppeekul du fi jóge du man dama wax ci kaw mu leer yër ba xam li ci biir maa ngi ñëw dafa nag di nga ko jiitalul mbaru di xam ne man ku ma naw la man man personnellement dama ko naw dama ko naw euh, lu jaar-jaaram ak lu mu yegsee mu ne ku baax aussi ah dalal naa ko yoon yu baree baree bare bëri jëlu muy wër feneen di dugg feneen li ma ko wax dafa leer sëñ bi man ñu ma pour gàllankoor kenn d' abord li ngay yëngatu fond bi nga xam ne mooy wàllu cinéma ak audiovisuel jàppale na ci yow ñi mu njëkk jàppale ci nga bokk te mën naa kon di la jàppale ci yeneen mais li nga génne yow xam nga li ci biir d' abord dañoo commencé tourner te amul autorisation yow fii sa émission bi amoon sañ-sañ def ko te amoo autorisation ci kii bi ci ci ci planning euh, ci chaîne bi ci programme bi d' abord autorisation ñu wax dànkaafu leen ne leen na ngeen ñëw méngale li ngeen def ak yoon defuñu ko ñu continuer ñu jël matuwaay ne na dakk ñu continuer loola dem ba defar ab annonce ne dañuy génne mbir ma. mais jumtuwaay matuwaay ca war yoon jël ko tere leen ko ne ku ci taqe wala ku ci laale yoon dal sa ko o oo naa ko ne ko na ngeen jël ngeen demoon wëriyaat direction de la cinématographie ngeen xool la ca xel nangoog la ca xel nanguwul li nga xam ne yow xam nga ne yow mhm. d'abord jubul parce que da ko def te amoo autorisation loolu day daanu fële ngeen jëlaat lépp loo xam ne laaj na ko sax man ci gunge laa wax da ci koppar ci jàppale la ba ndàmpaay goo xam ne la nga ci ñàkkoon euh, mun nañ ko wàññi gën koo yombal man fas naa yéene gunge la ci loola loolu mooy daal mais nag duñ nangu moom sax loo xam ne ngay ñëw indi fitna ci réew mi indi ay mbañeel indi loo xam ne mën na indi lom lompañal suñu kaaraange kooku nag bëgg liberté sa waay mënul tax ñu nangu loola mais man moom ci moom nag wax naa la vraiment hmm. bu ma sañoon dina xaw ma ku muy dal mais moom du ko dal hmm. ngir li mu indi ci wàllu audiovisuel hmm. li mu indi ci série télévisée yi nekk ndaw boo xam ne nii dafa dem bitim réew jàng ñibbi si xam-xamam def ay pexeem jël kopparam du bokk ci loo xam ne ni day ñoŋal cosaan ak aada. Mm. mais bu mu nangu bokk ci li koy également. Euh, li koy gàllankoor Marcel. alors euh, professeur lu lu jëm ci wàllu euh, genre censure boobu la laa bëgg ñu ñu taxaw bon censuré wuñ ko sax mais ñu ngi waxtaanee temps ci li nga xamante ne amoon na ci benn soirée avec des danseuses brésiliennes ma bëgg la ci dégg ci ci ci wàllu boobu beneen bi mooy ci wàllu culture urbaine. Euh, ñu gis na ne dafa am loo xamante ne des na en termes de de soutien a ce jeune ces jeunes euh, dañu jàpp ne ne euh, am na li nga xamante ni ci wàllu distribution fonds culture urbaine yi dafa des du ñëpp ñoo ko ñoo ko am ñu bari sax di ko critiquer donc loolu tamit lan nga ci mën a joxe comme li ma la mën a mm-hmm. ci wàllu li am temps yi soirée King Fat bi xam nga. Mm-hmm. man dama ubbil sama buntu. Mm-hmm. bépp nit bu yëngatu. moo nekk image yi ñëpp lay recevoir ñu ngi ñu ngi jéggalu ci image yi. naal dalal lan ma diis. ci jafe-jafe ci turu président de la République léegi ma jox naa la ci jox la la la la si war a aw ma ci frontière ci loolu ñoom bind nañ ma mhm. mooy Tange Tandian ak Mati Jaxate ci loo xam ne du yoon bi du yoon mu njëkk amoon na yoon yu baree bëri édition yu bëree bëri ma dalal leen indi programme boo xam ne lenn lu ñoog lii amu ca woon mhm. ah ñaan ma ma jël sama kaddu ngir gunge lu wala mais boo ma laajee sama kaddu kay ma def ko mhm. bu kaddu bu baaxul kenn du kenn ko sàkku ngir mu jëfandikoo mu jëriñ def naa ko waxtu woo ma koy def semaine booba ñaata biir Sénégal boo demee ba Matam nga dem ba Casamance nga dem ba Saloum ñaata festival ñaata programme ñoo am yoo xam ne ministère jàppale gunge leen financé leen wala def ci loxoom. def ci ju jumtuwaayam bu loolu amee man war man sax war a dem teew pour mu leer nañ man du ma arrière ci euh, ma gëm moo doon teew mais ma dem bitim réew bi lii amee bu ma fekkoon foofu man ca tàng-tàng balaa wax de. dinaa ko dakkal au police boo fa nekkoon loolu moom ñoo xam ne ko sama jikko mm-hmm. parce que lii du sunu aada. lii dafay dañu gën a dekke man Sénégal yi taal seen télé ko gis en direct. li da cee li da cee rax lii lu ñuul ci soow mi la. mais nag lañ ñu lañ ma waxoon man mooy dañu bëgg a defee liggéey boo xam ne lañ cay góobee ci wàllu koppar. dañ koy jaglelee néew gi doole yu Sénégal. loolu ku ci xëcc nguur nguur fekk si la ca. dégg naa ñii dinañ ñëw brésilien non mosuma gisuma ko fu ñu ko bind. yëgaluñ ma ko programme ba jot loolu bokk ca woon waaye nag aussi bi loolu amee pare waa jamono naqarlu ko te ma nangu nangu ko. Hmm, euh, police wax ca. bi loolu amee olu naa Tange moom aussi maa ngi rafetlu oyofam ak nangu njuumteem ak nangu soppite njuumte googu def na ab communiqué bu leer jéggul askan wi na ab leetar waa Jamra jéggalu leen tuub ko ne fa amuloon yéen mel noonu te du amati. d'accord euh, ba ba ma defoon émission loolu set wecc def naa communiqué boo xam ne am na lu bees lu jur. ndax ñax ñax bu wow. dina lakk lakkale gu tooy léegi naa leen léegi ku ñuy joxati lenn lu gën a néew muy jàppale ci matériel muy koppar bu jógee ministère bi bala ngay ñëw da nga la ngay def lépp loo xam ne féewaloo ne ak suñu cosaan ak suñu aada suñuy gëm-gëm ak luy tàngal xolu askan wi bu ca bokkee rax ca lañ la jox danga ñu ko delloo ba mbat te ñu crée nag bu la yoon waree topp topp la beneen maa ngi ñëw ci leen culture urbaine bi nga ñëwoon wax ko bu nekkee am na loo xamante gën a fës ci wàllu lu ñu mën a kañoo ko taaroo ko taaral ko bokk na ci projet yi nga xam ne ni dañ ko jox culture bi mooy xale yi nekk ci IBOP bi mm-hmm. man dafa am lu ma fa gis ñoom ci lu feeñ seen xereñ ci wàllu koom-koom seen xereñ ci wàllu créer ay xëy seen xereñ ci wàllu liggéey mais nag président yéeneen wax na ko mm-hmm. tàmbali na loo xam ne ni réew yu bëri amuñu ko waaye tey téeméeri million la ak juróom be ak ak euh, téeméer juróom-ñaar juróom benn téeméeru million la ne jox par at président bëgg na ko yokk ba mu nekk milliard liñ ci tàmbalee bu muy ndakaaru gi muy ba Rosso muy ba ci yeneen région yi lépp dafa ñëw am solo lool bu ma ñëwee ñoom laa njëkk seeti bokk naa ñi ma njëkk seeti ñëw am na ñoom sax seen projet dafa bloqué woon dafa ay pexe ci ministère bi yokkal ñi ay fukki million ñi fukki million ak juróom ñi juróom million ci liñ tàmbali woon te loolu bokk ci defal nañ ko mm. beneen ba des mooy fan yi di ñëw président waxtaan nañ ci jox ma tegtal di nga gis coppite yu bees yu baree baree bari yu yaatu lool yu màggal ñoŋal lépp lu jëm ci culture urbaine ak fond culture urbaine mm. beneen ba mooy ñu ngi bëgg nañ wax naa nañ rek ak yenn artistes yu mag a mag festival

du ma leen këppatal lañ wax loolu ñu gëm loolu président santaane mooy jaxasoog ñoom déglu leen jël jumtuwaay yi leen ba seen xam-xam ci wàllu wàllu gune gën fës mu nekk royukaay ci Sénégal loolu mooy yoonu jàmm mu yoonu mm-hmm. koom-koom monsieur le ministre euh, mm, défilé euh, Chanel bi amoon fan yi moom moom nu mu demee ndax sénégalais yu bëri dañoo xëy rek gis ko gis nañ ay euh, ay kàngam yu mag ci wàllum li ñuy def muy ku mel ni Naomi Campbell wala Pharrell Williams ñoom ñëpp ñu gis leen ah mais sénégalais dañoo xëy rek gis ko nu mu fa demee sant yàlla la bi may bi ñu ma nommé ministre bala may jël lenge yi mhm. ñi ma njëkk a dalal au conseil ci bureau bi moo fa am mooy waa Chanel yi ci diggante bi ay yoon yu bëree président Chanel ba direction ya fa nekk ak ña fa jiite ñëpp am naa ñu la dal yu bëree bëri xam nga li gën a am solo mooy bi ñëwee Afrique lii mooy yoon bu njëkk Chanel def défilé bu toll noonu dañ ko tuddee défilé mais la amoon weesu na défilé ci wàllu koom-koom ñaari roppalaan yu fees tepp boroom milliards yi ëpp borom ëpp koppar ci wàllu coono aada. jógee Europe Amérique ñëpp dañu jël ay hôtel yu fees dañu jël ay hôtel lëmm luyee ko ba nekk fa jënd lu nekk hmm. palais bu jàgg boobu hmm. dañ ko bees dañ ko bees la tàkk lañ ko def ci koppar jege na milliard bu may Sénégal def ko ca hmm. biennale bi dañ koo jàppale balaw ñuy dem si ak ñoom beneen kii boo xam ne yeneen koppar ñu yokkaal encore ci luy jëmale wàllu cosaan ak aada si ci kanam ci janvier bi di ñëw tàmbali at bi ñu ñëwaat encore ci yeneen programme boo demee université musée IFAN ba ña ci def seen alal di defaraat nga dem yeneen manufacture war nañ ko defaat ay ñiy jàng di créer ci wàllu aar du ba dee jàppale ci ay koppar ak gunge leen loolu ay milliards lañ ci def te boo seetloo keroog fan yi ñu génn semaine bu lëmm yenn compagnie yi ñëw Sénégal boo ci dem première classe rek business fees na tepp ci ay gan yu ñëw yoo xam ne ni bu ñëwee la muy njëloo rek bu koy limee am koy tàmbali ci mu dawee ba ndaw loolu. leadership bu président Macky Sall parce que. waaye du seen baax président lañ gis. Uh-huh. wax ko li ñu gisee Sénégal ni muy doxee. Uh-huh. am na ñuy def ca. loolu aussi ñu muy ñeenteelu yoon ci àdduna bi ginnaaw ba ñu ko defee France def ko Italie def ko États-Unis ñeenteel ba nekk Sénégal bu njëkk ci Afrique. ah Chérif mm, euh, rek xam naa ne question oui dernière question. Euh, monsieur le ministre dafa projet boo xamante ne jóg na fii fan yële euh, à l'image du monument de la Renaissance ñu ko doon rafetlu ñun ñëpp muy mémorial bu Gorée. donc euh, seetlu nañ ne bi mu jógee ñëpp ko rafetlu. du mhm. Sénégal kese Afrique diaspora bi ak euh, képp kuy askanu der bu ñuul mais dañu seetlu ne liggéey bi dafa xaw a yéex lool donc euh, problème bi fan la toll. xam nga mémoire bi président moo am coobareem bëgg-bëggam màggal lu mel noonu sunu mbokk sunu xarit bu am xam-xam xarañ yëngatu Amadou Lamine Sall di ci def kéem kattanam noppalegul nelewul añul ngir loola. man ma ñëw aussi bokk ci ñi nga xam ne dama gëm loolu gi ma ba président sant liggéey boobu waaye lu xam nga yàgg na lool. loolu li mu laaj ay milliards yu milliards yu baree baree baree la mais teraanga cosaan ak aada ak luy màggal lu mel ni mémorial Gorée lu mu jël ci koppar jar na ko ndax nag canu mbaaru woyu am réew mooy cosaanam muy démbam loolu président c'est pas pour rien que président dem ba jël ministère bi ñambaas ci patrimoine culturel mooy cosaan aada ak démb lu koy ñoŋal. jëmale ko yëkk gën koo yëkkati hmm. li tam fan yi di ñëw comme que APIX la ñuy war sant muy toppatoo liggéey ba ak ministère la euh, culture lañ ko dénk amul la ministère la yor projet ba dañ doon bàyyi session budgétaire bi jeex ministre bi yor wàllu finance ak man ak DG APIX hmm. amul la ministère lañ toog waxtaan saytu fi mu toll la ca nekk lañ mën a xalaat ak yeneen programme yi nga xam ak nga xam ne muy Turquie muy ñoom euh, suñu yeneen mbokk Sénégal yoo xam ne ku nekk am na bu ñu la ci jox ñoom war soyu ñëpp ñu foog waxtaan yóbbul président xalaat bu bees boo xam ne nii xëy na mun na ubbi beneen yoon. Mhm. nañu jàpp ne président génnu ca. Mhm. gouvernement bi génnu ci. waaye dafa laaj ay yeneen eh, jumtuwaay yoo xam ne ni il faut nga dajale lépp. ngir mën a commencé loolu merci merci beaucoup merci non heure bi jot na Chérif heure bi jot na Chérif parce que premier def na déclaration politique générale dégguma culture dafa mel ni xuusu ci trop beneen bi mooy motion de censure parce que député opposition bi nee nañ dañuy daaneel premier ministre bi <coughs> xuus na ci du du yababal moom mooy xuus ci lenn. génn génn wàllu kii goo xam ne tool son ak aada la da ma tontu li mu njëkk wax mooy dane lépp loo xam ne day ñoŋal wàllu industrie culturelle et créative la mu laaj ci jumtuwaay ay ci xalaat ak ak ak coppite dañ ko def ba mu nekk luy indi yoonu koom-koom yoonu moom sa bopp ak yoonu gën a fësal sa xam-xam ak sa mën-mën ak sa xarañ loolu li mu ëmb yaatu na wane ne ndawu Sénégal ñu war a nekk Euh, canu mbaaru loolu di gën a yëkk yëkkati cosaan ak aada ak démb Sénégal ci ay pexe seen i ak seen mën-mën loolu damu ëmb dafa yaatu man koy may xool naka lay euh, génne ay bànqaas ay cël ay xàll ay yoon yoo xam ne nii dina gën a ñoŋal loolu li mu ci wax rafet na ci xam nga aussi mm-hmm. ñëpp d'accord ne aussi président premier ministre démb lu ah. feeñal mooy Sénégal ci fukki at benn yu ñu génn lépp lu nekkoon benn président def na ko def na ko ñaar wala ñett muy ci yoon muy ci dund muy ci mbay muy ci eh, muy ci payoor muy ci alal muy ci sàq Sénégal liñ ci dugal lépp loo xam ne fekkoon na ko fi yokk na ko ñaar wala ñett ba te ñeenti yoon te loolu kenn mënu ko weddi opposition bi la ñuy def dañuy politique. merci merci beaucoup ba bu ñu yàq budget bi jéem nañ ko. bu ñu bloqué assemblée euh, jéem nañ ko léegi loi mooy ne mën nañu def motion de censure. Mm-hmm. xam nga lii tardeel mbir la ak bëgg a indi. Eh, xumbal goo xam ne dañuy ñëwaat encore wax lañu wane seen bopp waaye ba tey hmm. démocratie may na leen ko loi may na leen ko hmm. moo leen ko bañal ñu ngi koy ñoo war a dem taxaw aussi waxaat ak askan wi également ñu koy crito premier ministre hmm. leeral leen ne li ñuy def ni jaru ko woon joxaat kàddu gi député yi te ma gëm ne maa ngi invité opposition bi nga xam ne nii bëgg nañu réew mi continuer ci li muy joxe nii te ñu moytu fitna ak luy yàq ak luy naxasaay Sénégal ku ci nekk na nga jël sa responsabilité jël sa loxo yëkkati woote. dàq motion bi liggéey bi kon ne. merci beaucoup merci merci professeur Aliou Sow merci ministre de la culture et du patrimoine historique merci euh, merci. Uh-huh. Mm, mm, opposition am na ñu fa nekk ñoo xam ne wan nañ seen bëgg seen réew ak seen moom seen bopp ak seen fulla ba ci budget bi ñu passé ñu wootee ñu man damaa ngi ci profito mm, gërëm ñëpp ñoo xam ne ni mooy majorité bi ak opposition bi nga man de beral nañ ma loxo ci liñ ma président dénk ba ba ñuy wote budget yi xam nga majorité amul juróom-ñeent fukki kat juróom-ñeent fukki député 90. wote nañ budget bi ma jox. Mm. la ñi nga xam ne nii ñoo wote contre doon wote fu nekk ay juróom-ñaar fukk ak ñaar man juróom benn fukk kese ak ñaar ñu wote contre suñu budget. Mm. kenn banque bu sa loxo. Mm. loolu boo gisee. cim réew nag war ngaa gërëm ña ko def mm, muy opposition muy pouvoir ci leen a jàppale ko ci li mu tàmbali te réew yu bëri di ko di ñu ko ñeewee di ko ci bàkk di ko ci kañ mm. moo gën mm. ñëw rek di def ay yàq ak mm-hmm. ay xastante merci beaucoup monsieur le ministre Aliou Sow mi ñu dénk wàllum culture ak patrimoine la gërëm bu baax a baax bonne journée merci bonne journée <laughs> jërëjëf di jéggalu lépp loo xam ne am lu ñagas ci kàddu yi du yéene bi waaye xam nga rek comme que maa ngi ñëw sama sant jabi di ma wax rek mbiru ay ndékki ak ay añ ay reer mën na maa léegoo léeg jaxase si samay xalaat merci jërëjëf merci beaucoup ayo ñu ñu jàll ci l'observateur ak record yi ñu xëyee tey